uh, meet you but like I try to organize my job shop. So now I'm job the easy but I'm not going to my bagage. boy. yaa ngi loos de. waay maa ngi fii rek boy ndax am. li nga def waay cool man sorry de. xanaa bi moom concept tubaab yi la nag. ah bii kay concept black man. waaw ma ne xam nga sa africain la de. waaw loolu laa gis. yaa Gambien la soo mu ngi overlaaj boy. bii ma xanaa soo yu naka la xanaa soo yu. soo sa da nga juum boy bii li la. ah meew la bii de. boy yow temps boo dee ñëw saa nit boy du temps. ah benn lu ndax xam nga. waaw mooy toll nii wala daa ma ñëwee nii sax. waaw toogal toogal waaw daa to Hong Kong before you walk off. waaw ma ne. Eh, toogal ay ba. Ah, am fii rek. waaw ah, yow sow yi moom lii nga du sow. waaye ah, su ma lii du booy. ah lii moom façon lii la la léegi. lii meew booy ome booy. ah yow balaa seet si soog eh, bi sa booy. bàyyi loolu waay booy. foti di booy. ndax ndëgg moo nii di booy. waaw voilà bu ragal loolu bu ragal loolu yow. non baal ma ragal ma la waxee xam nga siis kañ te bu ma pensé bu wér. baal loolu de. baal ma pensé bi nga. non non du loolu sax. waaw kooku mu ngi nga lekk a pensé waaw voilà bu ragal loolu man dama fokkoon soxla man soo ma wala gannaaw Afrique sax. waaw ah ok alhamdulilah. waaw dégg nga yow su nekkoon soxla sax di ko waaye mu ngi omee la kay. ah omee la la yee boo eh, di omee la la mu ngi nii sax gisuloo ko mu ngi nii. ah waaw yow yaa ngi du soodee nag. waaye sëñ bi naka waaw naka yaa ngi fay naka joor bi yëpp jaam waaye fii nii moom fan laa mën a am fu may waaw ma ne kon baal ma sa tey nii bii boo jee na am na sulu ma ne ma ne moom dafa waaw waaye boobu toon nga de baal foon sa baaxoo waral. waaw ma ne non du loolu sax da nga foog. ah, ah ndax am ñun yëpp duñ mun a toog xam nga ñu jàkkaarloo nii foog ñeneen yi jooyee gannaaw wala ñeneen yi. wala nga ne naka la waaw tegee ko na doole de. waaw hmm. mos leen baax. ah non non boobu mi ngi la man maa jugee. non bi pensé sonn ma si de. pensé africain da ngaa réer. ah man de loolu moom afrique. yow dafa mel ni. yow Ya ba ya ya te ñaara gis ma ko ya ñaare da am boy dama demoon job yi fale boy wa ma ne loolu la ya ya de di ma la di ma la le ko le di ma la ala de ka bi kay bi boy ngeen war leen ne so xam nga waaw waaw de ka bi semestre yi ngeen ñëw ma tamit kenn du ma caba si de ka bi wa ma ne ki do semestre ma te ki ma bi ma ne te yo me ya ma ko le ko le ko te ma hanga bi de léegi laa saare suma bu de ni ndobi sa fi laa ko teew dama ko day yëg li ngay wax. waaw ma ne maa si ponse bi. ma yaaku. am dara la booy. booy ni ma jëm suma naa bi ko. booy daa nekk lool ci gerte sax diggante maa xam génn. man ba bi diggante la. booy dégg benn bi booy. ah kii ma suma attaque bi booy ma ci gàllankoor. dafa naa bi ah. naa bi ma nangu bu ko daa ab dis ma mun a génn ma nag booy. comme ma ko waxee rek.

boy dama soj sa man ba su ma cee naar bi sax booy damaa jëndali boy man dee naa soj sa man boy jéemal ba yowa jéemal a ah. jënd balaa ngaa téye naar bi moo gën ba yowa ah. yow dama laa lefin sax booy su ma waxee nga de gis nga su ma cee naar bi ah dama laa fay baxa booy nga defar ma ponse boy cobar boy ah boy caapanda hey boy boy gis naa yaa ngi suur na boy ponse bi boy yow bu dee ngi ndaw boy bi daa nga ma try boy waaye sëñ bi booy trial booy nga jeexal ko. <laughs> c'est la loolu booy. booy soo di dee booy. waaye sëñ bi moom noo ko defee garaaw na di. jarul mer booy suma bro la. non man mer ko sax damaa xelaat nii rek. yaay ba. su ma tëj fii. yaay ba yaay a yaay ba aywa happy birthday happy birthday loolu moo tax dëgg next time rek. ba pare am na yeneen sax voilà on a jëpp loo poti. lii ma booy. muy sa famille booy. voilà comme yéen a jëlee ma rek naa doon dégg mais dafa seer loolu la fa def. ko tigi la booy. c'est alors la fa def booy. booy jama yow benn kudu laa mos si lii booy. benn kudu laa tiba rek mos booy. ah comme loolu ñoo ñu doole da nga door fële. maa ngi dem liggéey sa fay ma xaalis booy kii mu ñëw fii booy. wala waaw ne job la jógee. boy wax na ne fii Diop nga jógee. Eh, loolu moo tax ma wax ma ne. ñu ngi ko nekk di ah. féeg kon kii bi béykat. non non non non soo ko féeg da nga ko war a féegaale da ngaa xelaataale sa biir bi biir bi ko féeg. biir bi because say dama ñëw xam nga because sponsor bi dama bëgg non yow apprécié naa la dama la jox sponsor bi yow su fekkoon am nga xel sa nga ne non maa ngi baax maa ngi pour xam nga waaye nga téye di dem nga door ko xoolal lii ñu taat na ko boy lii mel ni comme dañ ko raxas quoi boy boy ma dana la boy diga diga boy ko doy na mi na kii fu ndega sa kii fa la dega boy so da nga bëgg waa ne amuloo ma conseil nga ma waa ci la man dama la xam man dama la xam Ono oh, umala boy. After boy, then you're done. Yeah, boy. Yeah, boy. I look for my check sign. Now we smoking boy. Yeah, boy. The man who made the hammer boy. No, you're not smoking.